bokk yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla noonu yàlla boole jéggal tomb bu ñuy fàttalante tey xew-xew jamono la bokk yi war na noo dollee sant sunu borom subhanahu wa taala bu baax a baax ci boole gëm ñu boole ci jullit yi muy diina ju noppale ndax amul lenn lu nit di dugg wala mu di ca génn te te fekkut bu laajoon diina nu mu cay duggee wala nu mu cay génne mu leeral ko ko ba mu leer naññ waaye nag dox nañ ba toll ci jamono joo xam ne lii ñu bari dëgmal jox ko yitte jëpp mooy lu ñuy wax màdda màdda nag boo ko déggee mooy lépp loo gisut doo ko gëm loo laalul sa loxo it kenn mënu la caa yey ba nga gëm ne lu mën a am yanuñ ci yàlla musal ba ca gën a fes nag ñépp da wutali ko ba tax kenn xoolatut lu jaadu walla lu yàlla lu dul rekk nu ma ca tege sama loxo laal ko ba mu xam ne moom la nu ma ca tege sama bët ba ràññee ko ay moroomam loolu nag bi mu amee jaxasoo dafa daal di dikk ka ca gën a am solo nag mooy alal rekk ak i bokkam fan yii am na këyit wuñ siiwal ne li ñuy wax ger daa yaatu ci réew mi lool bokk yi nag ngir xam ne ger daa yaatu ci réew mi jërut déglu këyit wu of naag bind walla bu keneen bind ndax dañ koo gàll ci kaw nit ñépp ni leen gàlle jaam ni yàlla jaam gàlle jaamu yàlla jaamam ni noonu lañ ko gàlle nit ñi fa muy tudd naan fii la nekk ak faa amu ci solo waaye loolu la umpul kenn lan mooy ger mooy koo xam ne dañu koo teg fa mu nekk mu nangu ko mu nangu ne dana fa nekk waaye nag nekku fa nekkin moom fa mar a fa war a nekke kooku lam fay jële lépp ger la tudd ndax defut lañ ko sant bu gën a leer gàll gi ñu gàll nit ñi faw ñu garante foofa lañ war a lijjanti ji ba foofa lijjanti ku su loolu lijjanti ko rek ger dutu am bu fekkee ku tàllal du am kuy ku muy jox walla kenn tàllalut ñu di ca teg su amul rek ger dootu am ana nuñ ko gàlle nit ñi bokk yi amul fenn fuñ yaakaar di fa lijjanti moo xam yitte yu jëm ci àdduna kese kese la walla itte yu jëm feneen te ger amu fa ana loola may laan yi ci gën a ràññiku mooy foo xam ne fii ña fay nekk ñu teg leen fa faw nit ñi am fa yitte ndax léeg-léeg nga bëgg a lijjanti dara ñu ne la jaaral ci barab sàngam indi fa luy wane na jaar nga barab sàngam door a agsi fi man waaye foofa bokk yi boo fa demee léeg-léeg bala ngaa dugg képp ñay nekk ci bunt ba war laa jàllale doon nañu ko junj karo dañ naan la seetal noo def noo def ja nag bari nañ bari na ay tur yu ñu ko tudde am na ñoo xam dañ naan la koo fa xam soo fa xamut kenn jëru nga di fa gaaw a dem ndax doo lijjantiku doo gaaw a lijjantiku koo fa xam rek ger la ndax da nga fekk nit ñi taxaw di rang ñuy jàll par kenn waaye yow soo xamee kenn rek boo ñëwee da nga dañuy daal di wëral nga jaar nga lijjantiku romb fa ña fa teeloon na xëy lool loolu ger mënu ko weesu waxaale wuñ nag. li ñu ko tudde nuyoo nga xam ne moom da nga koy jox loxo mu jox la loxo mu xool ko ba mu jaral ko mu def ci poosam ndànk dem dikk ne diw dañ koo woo ana diw mel ni ku xamante wut ak yow mu ne maa ngi nii mu ne ko yàkkamte nañ la te yàlla xam ne tey la ko mas a gis da ko nuyu rek te moo ne moom jàllale nit ñi lañ ko fa tege mu dem ba ca wàllaa mu fekk fa kam fay seet koo ko tegale këyit ya bu dee ay këyit la mu ñëw mu war koo teg ca këyit wu féete suuf tàmbalee sa ña- ñu féete kaw déedéet su jaaree fam jaar ak kam njëkk a jot day daal di fab këyitu ki mujj ñëw ne ko nongu ca kaw bu ñu lijjantiku mooy jëkk lijjantiku loolu moom ku ne xam ne lu leer nañ ñi la dox na ba àgg ci it kenn ragal du defar si dara léegi fu waay bëggee def dara daal day jël baat bi ñuy wax jégglu teg ci pegg bi su bëggee weesu jégglu nag mu ne fu leen soob dem leen fu ngeen dem mën ngeen fay fekk loolu yàlla rek moo ko yaayoo waaye nañ koy fekk fépp mooy day jiitu fu ci nekk mu diw ko graisse graisse graissé ko li ñuy wax graissé yaari weñ yi bombante liy tax ñu bañ a laalante wala bu laalante du am jot du am solo graisse moo fay jaar ñu ne jaar fu nekk ñu graissé ba fépp nin bat su ñëwee su waxee ba àggal ni mu demee ñu ne ko waaw waaye waaw waaye waaye da yàq wax moom ba tax na kenn wóolututu yóbbu kenn fenn ndax xam nañ ne soo yurut dax wala nga yor aw niw ñoom ñaar yooyu nga xam ne dañoo niin moom yow jurut ngay dem ndax doo fa am ndam loolu nag day am lu muy jur ci aw nit ne fii ak faala moom bu baaxee it li gënoon mooy buñ ko xamee ñu ne cell ak moom te jéem koo saafara rek jàngoro ji bañ a lawati ndax junj naa ko léegi day ñàkk loo jom nit ndax yiñ doon xàmmee waa réew mi muy ngor jom fit ak kersa ger da koy dindi ci nit ndax boo xase ba tàllal ñu teg ca rek waa ji jërëtu mu naan la jërëjëf ndax fi mu jaar ak yow dong moo tax nga defal ko li mu ko defal waaye su boobaa wut lu baax ci nit ki ngir yàlla day daal di jeex te am na rapport boo xam ne dañ ko bind ci jikkoy doomu aadama yi ci adduna bi yépp waaye nee nañ ñi dëkk ci réew mi moom ñaari ñaari jikko rek moo tee ñu raw ci adduna bi yépp mooy jërëjëf ak baal ma loo ko defal su la ca joxul dara it ger la ca su ca jërëjëf waree danaan sama jarabaat la war na ma koo defal wala sama baay wala sama nijaay la wala maa ko yar mu jeex tàkk te jërëjëf yàlla fa waxaale wuñ nag su fekkee dalaa ger door a am lam lam doon am waaye baal ma it waral na yéeg ak wàcc bu bari te moo ne baatub jàmm la de baal ma mu ne xool leen fi ngeen di jaar nii rek ngeen di def mu ne sëñ bi ginnaaw baal ma mënu koo saafara léegi loo bëggati nag ñu ne fa ŋàjj ba yàgg bu ñu soxantee rek loxo ba loxo dem gémmiñ ñu tàmbali yéeg ko wàcc fa ñu yéeg ko wàcc it léeg-léeg nga dégg ñaar ñoo xam ne demaguñ fa waaye kenn ka danaan la danaa la fa bàyyi ñu téye la te nam ko waxee na lay amee loolu musiba mënu koo weesu su yàggee gaaf gi mooy kenn duutu xaar ñu ci dem fenn waaye day fajal boppam léegi ci taxawaay bi ndax amul yaakaar fa muy jëm moo tax aaya boobu ma jàng léegi ci alxuraan ñi doon lim naan barab sàngam barab sàngam la gën a baree ci liggéeyukaay yi limalewuñ ko ci te alxuraan moo ko tudd moom laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili wa tudlu biha ila alxukkaam ila alxukkaami li taakulu fariqan min amwali nnaasi bil ithmi wa antum taalamuun xam xel li nga def waa ji wala li la waa ji def ñëpp seere na wax dëgg kii a tooñ ka tooñ moo naan nañ dem barab sàngam xam na ne moo tooñ waaye foofa ñu tooñ la fa mën na faa ñàkk mën na faa bañ a am njariñ loolu alxuraan tere na ko ci alxuraan su ne déet xalima ngay bind bàkkaar day daal di taxaw ci ku ko def waaye xalima ngay bind tuyaabay day daal di taxaw ci ku ko bañ a def ñooñu nga xam ne nag ñoom lañ joxoñ ak ñuñ joxuñut am na ñuñ joxuñut ñoo xam ne dañoo dañoo xamut ci service bañ lañ bañ lañ bokk ci service yi waaye limaale nañ leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne dañ ko ger wenn yoon mu lekk ñu dellu ko ger mu lekk ba aw yaramam tàmm ko ba dund bi muy dund yam cay dunde yaramam tàmm ko bu mënatu koo bàyyi nga xam ne yooyu ci dundam la bokk loolee ñu ko gere lépp lu mu suuxat ci yaram mi ba yaram mi màgg ba amug wér ba mën a taxaw ba mën a dem ak a dikk su faatoo moom cër yooyee moom sawar la jëm te bokk yi cër yooyee benn du dem bàyyi fa morom ja nit ki mënoo bëgg ci moom ne gëtam yi ni ko yàlla bindee ma neex wala daa neexeree kepp waaye lépp ngay boole bëgg wala nga bokk bokk bañ lépp beneen xadis itam wax na ne dëgmal gi nit ñi dëgmal màdda muy alal te alal bokk ci tax na ba kenn ku nekk buy wut dinaan naa fexe ba su ma amee rek di ci def lu baax nu ma ko wutee baax na waaye su ma ko amee rek di ci tabax ay jàkka di ci jox ñi diw ñoom rek lépp baax te it loolu lay nuru ndax ñi mu koy joxe dañ naa ko tawarkal la lépp baax na de waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku fàggu te ger bokk ca mu di ko tasaare ñoo naa ko tawarkal la di ko ñaanal na ko wóor ne loolee muy joxe moom lu muy feret la feret mooy loo xam ne demagoo demagoo fa nga jëm nga yónnee ko mu fekk la fa astafurlaa nga yónnee ko fekk ko fa nee na li des ci alal ji bu waa ji faatoo yit luñ koy màndaala mu di ko fa fekk lam gisoon a dawal ak li ko fay fekk lépp ab yóbbal yóbbal bu muy yóbbal la ëllëg ànd ak moom dugg sawa yàlla na nu ci yàlla musal ndax sobe lu taq munta setal lu taq waaye lu set wicc mooy dindi lu taq ndox mu tilim munta setal lu tilimoon waaye ndox mu set wicc mu set wicc moo mën a dindi tilim moo tax kii yor ay liggéey moo xam muy liggéeyu boppam di ko liggéeyloo aw nit di leen fay di ca ger ña muy liggéeyloo ger nag ni ma ko junje léegi ci xamle bi lu yaatu la nit dana liggéeyloo aw nit di ca boqal ñenn ña lu mu dut boqal ña ca des ngir bu ëllëgee bu taxaw jàkkaarloo moom jotee ñi ëpp ñam doon boqal féeteeg moom ña ca des ñu néewal leen doole loolu mi ngi am waxaalewu ma nag yi ma jëkkoon a junj léegi ma jàllale la nàngam wala ma jaar fi jàll wala ma jaar fi am nàngam waaye léeg-léegit koo xam ne du kenn ci kuy liggéeyloo wala ku ñuy liggéeyloo waaye kilifa gu toog fi mu toog rekk la moom itam su fastee su toogee faste ay loxoom faste wut xànc ak moroom ja waaye lu may bëgg bu ko jaaree ci moom mu yomb kenn jaral na ko sacrifier ñépp kooku it mi ngi toog foo xam ne xamut fu mu doon gannaaw li am jàll na bind nañ ñii bind ba noppi moo ne defar ko weesoo guddi nañ bàyyi xel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na te yàlla nee na du waxe ba kanam su ëllëgee balaa kenn jéggi ab jéego jëm fa muy dem yàlla dana ko ne déet taxawal mu taxaw mu ne ko mu laaj ko ñeent laaj wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko laaj ñeent ñeent yim yent yim koy laaj nag alal bokk na ci foo ko jële junjoon naa ko fi karoog mu wax lu bari te bokk yi foofu bokkut ak fii de ku ne xam na ne ku génn réew mi dem ci meneen réew képp gis ak soppiku mu mel ne bokkut ak na mu ko xamee woon démb ci réew moom jóge yàlla moo bind noonu wuute gi mu wuuteeg ñépp day feeñ ci li muy bind fenn réew rek sa moroom foofa bu ñuy déglu nit ki muy wax duñ ko dugal ci ab néeg ay laajkat di ko laaj muy lay waaye foofa ni muy demee junjoon naa ko keroog ma dellu si wat ci làkk wu neex waaye na ko wax waaye suy wax ñépp koy xam ndax ku dem ci ndaje yu mag yi yooyu ñu dëpp ci nopp yi ñu bari ñu ñu wuute ay wax ñoo koy déglu te ñépp ay xamandoo li kenn ki di wax ñu koy wax traduction simultanée su boobaa it fii may waxee foofee koy gën a xumb fuuf su bëggee wax ci làmmiñam lu dul noona cër yi ñoo naan déedéet demewut noonu ni ñu la deme naa la deme bu ñu demee ci alxuraan danañ ci fekk am na ay ñetti barab foo xam ne yàlla day wax ne damay kole làmmiñ duutu wax waaye cër yi ñooy wax soo demee ci suuratu yaasin ñu bari dañ ko jàng al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun tey moom laajuma gémmiñ waaye cër yi ci des laay laaj lu mat a bàyyi xel la loxo bi nga xam ne danga ko doon nuyoo di ger ki ngay ger loxo bi day wax bis ba wax heure ba wax at ma ak barab ba ni ngay xoole sa téléphone xam ki la woowoon bi sàngam la ci heure sàngam ci numéro sàngam dañuy dem ba fi ni ne ñu xam dëkk ba mu la doon waaye subhanahu wa taala kon loxo ba doon joxe ak ba doon jël bii danaan maa doon joxe bii ne maa doon jël ñu ne nu mu toll ñu ne mëneesu koo lim bari na ñu ne kon yéen ñi doon jël ci lu dul yoon ak yow mi doon jaxas ci lu dul yoon kat seen ñaari loxo yi dañ koy dagg moom yóbbu yóbbu sa waramam loxo yi ne déet mënuñoo dem bàyyi fi yaram bi ci des si ndax ñun ñëpp ko àndoon du man dong bokkuma ci ko gën du man dong lay wax waaye su man dong bokkuma ci moo ko gën waaye mënu mu ñëpp ciy bokk su booba su ko defee nit ki ci boppam taxaw layoog ay cëram wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shayin wa huwa xalaqakum awala maratin wa ilayhi turjaun kon tey kenn mënta làqatu kenn mënta nëbbutu ñépp lay séenandoo ñépp lay gisandoo nañ la doon ñee nga di leen romb ak yi leen romb te lépp nga jëlee ko ci ger noonu la la ñépp di xoole wa ma kuntum tastatiruuna ba ngeen di def lii ngeen def nëbbu leen ci woon ñi ngi ko seqaloon ñëpp xam nañ ko xëy nañ xëy gis ngeen yor loo xam ne xamu leen fu ñu ko jëlee wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'akum wala absaarukum wala juludukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun kon ñeent yamuy laaj alal bokk na ci foo ko jëlee mu wax ba àggal loo ca jot a def bu limee ay jàkk yum tabax ci alal jooju wala mu lim mbooloo moom ca jox yàlla da ko naan demal toppi kon ña nga ko doon jox ñu fay la waaye man yërewuma la dara ndax li nga yoroon soxlawuma ko inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kon boog wutiin lu mat a seet la ña koy bind bañ ko bindee it kenn amul yaakaar ne des na ma sa teg loxo ci nit ne ko yow mii dañ laa ger waaye jullit yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ci ñi ñi koy def ak ñi koy def nañ xam ne ëllëg lu jege la innahum yarawnahu baidan wa naraahu qariba yawmun miqdaaruhu xamsiina alfa sana law yaftadi min adaabi yowma idin bi banihi wa saaxibatihi wa axiihi wa fasilatihi allati tuhmihi man fi l ardi jamian summa yunji kallaa ku ne yàlla laajal li ma am lépp ma jox la ko te mucc ci lii may séen du tax kenn mën a mucc yàlla du ko soxla weesu na kon ñi ci ay jullit ñoom nañ xam ne yamuñoog ñi ci des ñi ci des moom keneen na leen di àtte waaye ñoom yàlla subhanahu wa taala moo leen di àtte li ko waral mooy dalika bi anna allaha mawla allazina amanu ñu xam ne ger ak jëflante bu jaarut nam war a jaar musibam àddunaam fii moom leer na léeg-léeg ñu ne tiib nit ne ko raw dutu gis biti léeg-léeg it ger bari ba kenn mënut a lijjantiku nit ñi tàmbalee fajal seen bopp loolu fitna mënu koo weesu te alfitnatu akbar min alqatl donte alfitna léeg-léeg mi ngi tekki as shirk waaye shirk benn weesu wu ca yàlla ne fii la nga ne du fa waaye rawatina mbëggalum ëllëg kon boog jullit bu ko dégg na xam ne yàlla nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sammacuuna lilkadibi akkaluuna lissuxt fa in jaauka faxkum baynahum aw acrid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'an wa in xakamta faxkum baynahum bil qist inna allaha yuhibbu al muqsitin mooy ñi nga xam ne bu ñu toogee fi seen pegg di wax lu dul dëgg duñ ko weddi duñ jóg dem ñoo ñiy lekk ger ñoo yam ñaari kuréel yooyu buñ ñëwatee ci yow ne la atte ñu wala waxa sama diggante ak diw àtteel te yàlla tax waaye bul jéem a dugg ci benn daayira ci ñaari daayira yooyu bul jël ger bul déglu nit ba mu wax ba ràpp nga ne tus naa ko ndax ni mu tolloo tax ndax ñoom ñaar ñoo ne kenn mën na lu ci dara booy àtte àtteel ni ko yàlla diglee te ñoom sax nuy ñëwee naan la àtteju wa kayfa yuhakkimuunaka wa indahum tawreetu fiha hukmullah thumma yatawallawna min baadi dalik wa ma ulaika bil muminin kon cër la yoo xam ne dañ koo séddoo ñi nga xam ne dañoo war a gindee di joxañ nit ñi fi ñu war a jëm nañ xam ne réew muñ tudd ne ger ma nga fa am nañ ca sasu diis wu ñu war a bay am na lu ñu koy bayee wër ak seeni tànk te loolu yomb na léegi fenn fu nekk ñu woote fa joxe fa ay bind ci li ger di wàññi fii ak fañ jëm musibaam fi la tàmbalee jëm ëllëg léeg-léeg nga dégg ñu ne nangam fii rek la tàmbalee yam fii waaye bokk yi amul leen lu tàmbalee ci àdduna yam àdduna kese rawatina lu ab jullit di def ab jullit lu mu def ñu ngi ko koy bindal foo xam ne fii ëllëg dañ koy woone ko iqra kitaabak kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba su ko defee la weesu bunt bi tëjeegut mooy tuub képp koo xam ne jëloon na ger ba lekk ko na jëfandikoo sarti tuub nu mu koy defee mooy lu ko waay joxoon mu dem delloo la ko ndax ëllëg nga ñëw te kuñ ne delloo ma la ma la joxoon doo am loo joxe yal nañ ci yàlla musal suñ ko gën a yaatal nag am na benn xakim bu def tasawur mooy jeneer nii rek ni ëllëg mën naa am am na benn xakim bu wax ne buñ doxee ba am téeméeri at ak lu teg téeméeri at ak lu teg yëmut fenn ba àdduna tukki yàlla mën naa dogal ñu bari ñu doon xamante fii daje àllaaxira xamante kooku nag dafa tasawur ne bis président Sénégal fekk téeméer at ci kanam mën naa ñëw taxaw buntu aljanna moo ko waa këram ni feey fan ñu ne ko fii de mooy aljanna mu ne man na bëggoon naa fee dugg ñu ne ko loo def ba war a dugg aljanna mu lim lu bare bare bare bare bare bañ ne ko ah loolu ko yaayoo na yaayoo nga ko kon mu laaj ne waaw aljanna bi waa Sénégal a ngi fee ñu ne ko ah kay lu ñu fay ñàkk ndax ay jullit lañu woon ñu gëm yàlla di jaamu yàlla mu ne kon baax na doy na bëggatuma fee dugg ginnaaw danaa fekk waa Sénégal doy na sëkk sëñ bi boo boo duggul àjjana fay dugg mu ne xawma fu may dugg waaye doy na daan ne soxnaam ay ca ñu dem soxna su ne ko cëy waa ji maa ngi tiital nga nangoo dugg fekk leen fa ndax soo leen fa fekkoon ba nga nekkee Sénégal sa alal lañ doon lekk alal naa loolu nga fekk leen ci biir ñu ñu lekk la yow ma ñàkk man ma ñàkk nag kon boog ku joxewut kenn du tàllal kilifa ak diine kilifa ak aada nañ xam ne ñoom lañ yor moo gën a diis ñoom seen àtte du tey ëllëg la amuñu fu ñuy jàpp ni di ko fa tëj sëñ ñoo tëj sëñ ñoo jàpp waaye ëllëg la ñuy taxaw ak ñañ ko séqaloon léeg-léeg nit romb nit bëgg a dugg aljanna ñu ne yàlla kee ba demee ajana danañu jaaxal kat lu mu dafa war a dugg ajana yàlla na jaamu yàlla doon liggéeyee fu mu toll mi ngi ci ixtikaaf bu dee weeru koor bu dul weeru koor mi ngi mi ngi xalwa lu mas a amit joxe na ko moo tax ma di ko yóbbu ajana ñu ne ko loolu de bu ñu ko waxoon ñu bokk ñu bokk moom dem aljana du nekk ci mi ñu nekk loolu mooy mi ngi ci alquran waqifuhum innahum mas'uluun gannaaw seenub atte ëllëg la nag ak ñiñ ko war a siqal waratuñoo toog di nelaw waratuñoo noppalu rawatina bu ñu dégg loolu ni mel loo xam ne gaafam fii la tàmbalee jëm àllaaxira waratuñoo noppi waratuñoo nangoo jël tam dara loo xam ne leeru leen fu mu jóge ndax lu ñu leen jox dana tasaaroo te bu tasaaroo ku ca lekkoon danga ko gëq bu ëllëgee ni ko sëñ bu mag bi jàngalee ci ab téeréem ba kenn ci waa këram di jëw kenn ci waa këram daa am ku ñëw booba musiba mu jëw la doon jàngale ba kooko ñëwee ba dem ñii ne soxna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii ne doomam la waaye daal ku jëw la mu ne kii de mbubbam mi rafet na lool waaye gàttaay bi gàttaayam bi wartoon na watu nii muy watoo li nekk modd dëgg mooy wërta watu waaye gàttaay bee tax lu mu sol mu ëpp ko yonent bi ne ko demal wàcc ji fee mu dem looju sallallahu alayhi wa sallam ba mu loojoo dogu yàpp bu mag génn mu ne ko dog bii bu faat bu reesoon ci sa biir sa war a nga yem sag bokk ak yonent bi jëriñu dara kon boobu li ñuy lekk di ko tasaare ci nit ñi di ko lekk war nañ ko xam te xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na da nga gis waajoo xam ne ma nga saalaña saalañ saalañ mooy ko watuwut fënd fënd li ko ko teg mooy sëñ te tëluta tëluta sangu ndax jaamu yàlla ko metti tëluta watu ndax boo tañee daa bëgg àdduna mi ngi dëkk jaamu yàlla waaye nee na yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ba noppi dëkk yaa rabbi yaa rab di ñaanal di ñaanale di ñaanale te li muy ñaanale nit ñaa ngi ci tàmbali sikk sàkk ba xam ñaanam gii xanaa ñaan daa nangootu léegi mu ne ah kay ka doon maye kañ doon ñaan ñu koy maye mi ngi fi ba léegi si waaye nag kooku li tax ñaanam mënta nangu li muy lekk li muy naan li muy sol fi mu dëkk dara baaxu ci kooku nu ko yàlla di wuyoo te yàlla tayibun la yaqbalu illa tayiba rajulun yutilu safara ashaatha agbara yamuddu yadayhi ila samaai ya rab ya rab wa matcamuhu xaraam wa mashrabuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa gudiya bilxaraam fa anna yustajaabu li dalik kon ñoom ñoo ci ëpp bi yan ak fu ñu mën a nekk seenub atte du tey ëllëg la yal na yàlla musal nag ci dem ba jub aljanna futihat abwaabuha wa qaala lahum xasanatuha salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin nit jóg jëm ca yàlla gaayee na yàlla waqifuhum wa yàlla ne gars yi waqifuuhum waqif waqifu haula innahum mas'uluun ci lan gars yi na re- wareet xamuñu lu ñu def ba lijjantiku ñee ñoo leen ko teg loolu mooy tafliis wala iflaas ci ab liggéey ànd nañu nu ñu def ak ñoom wàññi leen ñu ñëw kenn ku nekk jël ci mor- moom xaqam su tëyee jeexal ñu fab seen bàkkaar yeen ko ko moo tax suñ mag bi dañ ko ne yuuxu àllaaxira dañ nee nañ yuuxu dana dana yuuxu dana dana jëf fu ñu ko fooge mu ne mbaata fu ñu ko fooge wut kon boobu gannaaw ab rap ab rapport nee na réew mi ci ger la ñuy dund daanaka nee naa fi ñu tudd fi ñu tudd amul njor amul solo ci njaboot gi lañ bokk ñoom ñëpp ak njaboot a nga fa li ma tax def fi mu toll ne mooy jóg wër réew mi dëkk bu nu ñu taxaw fa wax leen li nekk ci ger li muy wàññi nit fii ak fële te yow mii itam gannaaw xame nga ko noonu looy jëlati ñu di la ko jox ak ku la ko mën di jox xoolal ba xam fu ko waaj war a jële bi ñu naa ko fi karaw ni ko suñ mag bi tàmbalee woon a def ba ñu yóbbu suñ Mor Anta Sali di ko jëlee Mbàkke Kajoor di ko yóbbu deqale ci texte wasiya kutiba alaykum ida xadara axadakum almawtu in taraka xayran alwasiya bu faatoo nañ ko yóbbu Mbàkke Kajoor ba muy dem di defi wasiya ba dénkaane am ku tolloo moom ne ko waral fas wi te ngaa jël sama fas wi ndax dox bi metti na waaye li sëñ mag bi jëkk a xool ci moom mooy waaj fu mu war a jëlee wi fas rek doonu ko ci baayam doonu ko ci maamam te du yarkatu fas du ab teefank du jaaykatu fas du jëndkatu fas nu muy dafa am luy sàll kon xel xalaatut may laal ëllëg si biir yàlla naan sa loxo yi ku jëloon fas wa mu naan man bàyyi doxam a gënal moo ne wax nañ ko ko yidday lu ko niru biñ jaaree ba noppi ne ko kaay ñu dem ci kër buur ñu boole la ak moom mu ne rus naa asamaan si ak malaayka yi di ma séen may dox di jëm ci man rawduhum teg ca lam ca teg kon boog jóg jot na mbas yi nga xam ne day dugg ci am réew ñi woo nit ñi nag kaay leen ñu pikiir leen ndax du leen dale du leen dale wala bu leen dalee du metti wala ñim dal nañ ñëw ñu faj leen te du ñu fay dara mbas dugg na ci réew mi moo xam ne fajtal gi weesuwut ñii déggu seeni kàddu jóg wax ci rek dox ci wax ci te jëkki ko ci seen bopp bu leen kenn mënal dara lu metti metti nañ muñ te xam ne gémmiñ gu yàlla sàkk dana ci def lu mu lekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon su fekkonte ne xool nañ ci mbindeefi suñu borom yi duñ jaaxle mukk xoola picc yii nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci kaw suuf si di dund denc ñu dara lu ñuy lekk denc ñu denc ñu magasin denc ñu ay compte banque te bis bu set bu ñu xëyee yàlla dana leen jox lu ñu lekk ñu dellu tëdd ba subaatu ñu xëy wutiwaat yàlla joxaat leen kàkkatar wolof day wax ne li muy yeex yeex kéwal li muy gaaw gaaw mënut a yóbbu mburum kàkkatar foofu xekk ma dafay nekk boo xam ne doomu aadama war na koo xalaat ba dugg ci yenn yi kàkkatar ilmu ilmu tajriba nee na noonu muy soppikoo du soppiku waaye yàlla daa bind ci yaramam bi lu mel ni ay seetu seetu amul benn couleur loo ci teg muy moom bu ko defee lu mu dugg rek mu mel ni ab seetu ci yaram bi doo ko xàmmeek lim dugg wala lim yéeg wala ñax mi muy dox loolu yàlla jëfu ko noonu rek ci neen waaye dafa am ci àll bi ñoo xam ne kàkkatar la ñuy wër bëgg ko lekk moo leen gën a lu ñu mën a am te kàkkatar yi war naa dund su ko defee yàlla bind ko noonu ba li koy seet du ko gaaw a xàmmee ci li muy wër ci àll bi waaye moom it li muy wër di ko jàpp te mënut a ñàkk dund moom it yàlla def ko ci def ci muuram loolee muy jàpp du gis kàkkatar kon xereñu suñu borom ak coobareem ak kattanam sorente naag di bind la muy bind te du ko wutal fu mu jël la muy lekk kanaan ba ci rab yi waxantuma nag nit ñi nga xam ne moom moo war a sàmm rab yi ci kaw suuf si inna jaalnaaka xalifatan fi l ard anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha kon nañ dellu siwaat xel yi te xam ne màdda day jeex rek kenn du faatu ci bàmmeel ñu ne ko ñaata nga fi bàyyi lan moo doonoon sa fonction lan moo doonoon sa lu ñu lay fay par weer sa retraite ñaata la woon kenn du ko laaj ci bàmmeel la ñuy laaj ci bàmmeel nag te ñëpp fa lañ jëm lu ñu yéex yéex moo mat a waajal tontoom te jàngalekat yu jikk yi daan nañu wax ne lépp loo xam ne boo ko dugalee ci sa biir bët du sa xaj rek bul ko jéem a dugal ci bàmmeel xam nañ ne bët fépp suuf sax nit mënu koo xoolaale te dindiwu ko yàlla nu yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci seytaane ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin